ah yow lay xaar. yaa ngi may def appel bu nekk. appel naa la bu nekkee. non dañ koy yeew kii du sàmmi mais loo yëg li ma yëg xam nga lan li ma gën a ci nag yi mooy waaw nagu waa Ndiassane fi nagu waa Tiwaawan a ngi fi. nagu waa Kaolack a ngi fi. nagu ñëpp ngi fi e, Fadam. barke Serigne Touba léegi la ne ma mardi ñëwal ma jox lañ nag yi jëm Ndiassane nga yóbbul ko xalifa Ndiassane. wallaahi barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul. lii rek ma ci neex. bu Touba ñëwee moo ca mën. bu gàmmu ñëwee moo ca mën. ci ci tam xarit ñëwee moo ca mën. sama xarit bi Aziz Alla Ndiaye sama mag. yii mm-hmm. nag xam nga ni du nagu jéppi de déedéet yii du nagu xaarama sëllax leen ko rek de déedéet lii du nagu xaarama jeexal gàmm gi benn yoon rek de lii ay nagu ndaanaan la laa ilaha boo ci laal ak yàpp lu mu seeree man mii jaay restaurant léegi waaw xam naa ni kilo yàpp quatre mille quatre cent lay jar ana yëkk bi laa ilaha illallah nit lay bañ a ana mu mooy bële waaw xool ko lële laa ilaha illallah yaa ngi nii seen tudde waaye ñun ñoo la njëkk a gis laa ilaha illallah yaa ngi nii seen du waaye ñoo la a gis. laa ilaaha illallaah. te nag yi na faram. camion yaa ngi wàcc nag yaa ngi wàcc. yaa waaye faram damaa gis ñenn ñi. ñi nga xam ne seen xol neexut. waaw ñi nga xam ni bëggoon nanoo yegg si te yegg si wuñu. wallaahi ndeysaan ñu ngi may xas. nan ma waroo wax lu baax. déggoo li ma la wax. dafa am sama benn dafa am lu père Massour ma ma wax léegi. Mm. nee na Cheikh xaaj Hadji Malick bi mu jàppee ci buumu Kaaba yi da doon ñaan doom ak ak taalibeem bu kenn xàmmee ñu ne ko lu tax moo lu mel ni yee taxoon ay taalibeem mën lu sëriñ si mën. dëgg moo tax moo tax lii am na solo. Fadam. nag yi may may le nag yi am na oto yu taxaw fële. waaye ku yi kuulal la moom. nit lay bañ a gis. ilaaha illallah. moo nekk nii ci biir. ilaaha illallah numéro 2. nga ni ma. nagu waa Tiwaawan nañ fi nagu waa uh, waa Njaasaan nagu waa Kaolack li yemul Tiwaawan kese pour ñëpp la eh, teel sa gi yemul teel sa gi sa nag yaa ngi noonu te Boucher li may wax yow ni Boucher ba léegi nii lii Abdou Aziz Ndiaye ko jënd miir ko pour dara du gàmmu ba gàmmu fi yeew nag barke Sëriñ Tuubaa damaa fekkee gàmmu daawaati jéeg baayam ni ko mhm. mi nii na wax man lu may wax rek seede la baayam daa taxaw ci digg kër gi masataa ngi ne dem lañ ngeen laaj ko soo bëggee ñu ànd ci moom nañ dem ma wax loo xam ni maa ku fekkee nañ dem ci masata lii may waaj wax leen rek ma wax leen ñëw leen ñëwoon rek lépp day leer lii maa ko fekkee te ku fekkee da ngay seede dëgg Masata ngi nii. jégal par Massa Diop jégal. mën na koo fàtte mën na koo bañ a fàtte ndax yàggul nag ñaari at rek la def. fàtte ngeen nag yi daawaati jéeg. gàmm gu mujj sa papa fekk koy ko fi. ba ñu yeewee nag yi. sa papa génn ci buntu kër gi. ñu ne suba la ñu ne tey la gàmm. ñu rey yenn nag yi. mu am yu des. sa papa bi mu génnee lan la wax. waaw. rey li daf ne li li fi des nii pour lan la. ñu ne ko ndawal lee ëpp. mu ne leen bu fi dara des. waaw rey leen nag. te li fi desoon mat na téeméeri nag ak juróom-ñaar foofu. noonu lañ tëralaatee nag yëpp rey ko jox ko waa penc bi. la ilaha seen bàyyi leen wax lii ma fekkee maa ngi taxaw masata ngi taxaw masata la woon ne ko masata masata ñëw mu ne ko lii pour lan la masata masata ne ko papa ndawal lee fi bari mu ne ko ray leen li fi des yëpp bu leen ko fi bàyyi non daf ci teg dara sax ne boo leen ko rayul di barke Serigne Touba Mbacke dinañ ko dinañ ko dëjalee nit lii moo ko wax lii la sa papa wax mu ne boo leen rayul nag yii des di ngeen ko dëjalee nit ci kër gi barke alxuraanu kari papa mi la maa fekkee ki Bakar lay laaj maa fekkee Bakar lay laaj ah Bakar lay laaj kon nag lii du ngistal lu war a am la ci dëkk bi te ñoom la ko yàlla jegleel moo tax ñu koy def. kon na ko àdduna bépp nag. barke Sëriñ xam Aziz na daal ñu ko. Aziz xool yi tooyati na de. Aziz lii moom Aziz. lii moom c'est <laughs> amul baat. Aziz nee amul baat. Aziz nee ci réew mi. Aziz nee amul dara lu muy wax. Aziz njaay nee na amul dara lu muy wax dégg nga ko nee na moom amul baat ñi baat mooy sénégalais yi li ñu leen di wax rek mooy nañ ko ñaanal nañ ko ñaanal ndax lii muy def ki dëkku Cheikh Seydi El Hadji bi boo ko laajee mu ne awma baat loolu lu yéeme la lu yéeme la lu yéeme la dund nii lu yéeme yéeme yéeme la ñuy dund ku mel ne Aziz Ndiaye indi fi lu mel nii mu des ay camion ay camion war a wàccaat ma laaj ko Aziz lii la moo ci sa xalaat mu ne man awma ci baat allah akbar jangale la de jangale bu mag la. waaw loolu mooy jëf séenu ko. jàngale bu mag la. lolou moy lolou moy li muy jëf. Mhm. seenu ko. deug la xam nga ñaar dafa am. Mhm. ku dof du gërëm. Mhm. ku iñaan du gërëm. dëgg la seigne Mbàkke ab dof loko defal xamuko deug la ku iñaan loko defal altiné mëna demb la ko war def dimanche. wallahi wallahi mais li wax ji wax ji yépp gis nga Seydi azimali Malick. mënul woon ku melni Abdoul Aziz Ndiaye. ndeysaan xam nga tay ji koo xamante ni l'islam moo la ñor. koo xamante ni tey jii Tiwaawan moo la ñor. Abdoul Aziz Ndiaye ku mel ni moom mënu fi woon ñàkk. wallaahi bu gàmm jotee. kër yëpp a ngi fi nekk waaye xel yi par force mu dem kër Abdoul Aziz. moo ko liggéey. ndax lii mu am ni mhm. te geexagul. comme ñu ngi ñëw. dëgg la lii mu am ni caaxaan may wu ko. kenn du gis pay nag naan dës ba mën a daw. billaahi barkent bi. Tiwaawan sagu nan. Mm-hmm. ku dul Tiwaawan sax sagu na ndax nii mu koy defee biir Tiwaawan noonu la koy defee biir Touba wallaahi maa ngi toog léegi ak buuse mu ne ko nag yi war a jëm Njaasaan mm-hmm. talaata nga koy yóbbu kon nit ñi mm-hmm. da nga bëgg ñu xam ne Abdoul Aziz sagu Tiwaawan la de waaye sagu lislaam la wallaahi wallaahi yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko li ma gën a neex te neexati ma boo waxee da naan la tey aw ma kàddu amul kàddu ci li mu def boo waxee mun la masata wallaahi jiital ko wallaahi jiital Baye jiital Babacar Ndiaye ba pare jiital ay rakkam wallaahi. kon nag nag waa ngi suuroo bu ñu ko rey du la tax a suur. ba ci kanam ba ci kanam. kontaan nga kuy Sénégal kontaan kontaan nga. Mhm. yaa ngi tax nag ñii di ci profité ñëw di ma jëlaale. Mhm. yaa ngi de gis nga ko ni di ma dag ku ci ne. di ma non mais sa diggante ak Abdoulaye Diallo la mhm. ko mu dee ma dee fa lu mu dugg ma tax ca rib. loolu Sénégal xam nañ ko. loolu am na loolu Sénégal xam nañ ko. ñu koy ñaanal yàlla. yàlla ko yàlla dafa jam musal ko ci cet musal ko ci la ñu ñaan ci yàlla lii muy def fii ci Tiwaawan te bu koy def du tàggu kenn te saa yu ko defee bu ñëpp ñëw te ku ñëw yéemu loolu wax dëgg yàlla ñëpp kontaan jar naa xoolaat loolu jar naa xoolaat mais ñëpp kontaan nañ nga yaakaar ne la mooy secret Alaaji Maalik waxoon na ni yàlla nañu yàlla yàlla bi muy ñaan soxla am ci Tiwaawan ne woon na yàlla na ma yàlla may ay gone yoo xam ne si ay milliardaire lañu waaw ñaan nga nangu mooy première moom Asin lii man naa ko wax man tur bi wax loolu. Mhm. doomu bàyyi ma jama yàlla na ko yàlla dafa jàmm bu baax baax a baax. boo ko ñaanee mu nangu. man nag daf maa boole ci yëfam. loolu am na. te ñu ñu a bokk ci yëfam bëri na bokkuñ ca. Père Mansour Diop ku baax boole ci yëfam. waaw doo wax lu ñaaw. jërëjëf doo ko fekkee. nit ku baax nga. te bi Sidi bu Aboubacar Si nga. wallaay dëgg la waaye tey jii lii mu def nii te nag yi xaajaguñu. non dama ne ñëwaguñu. nag yi ñëwaguñu des na ay camion yi ci ginnaaw te suba ba tey ci àll bi la ñu mais lii ku mu doyul dara dootu la doy te xam nga fi mu ne wuy ma lii bu ñu amoon fukk yu mel nii ci bis yoo xam ne adduna bu tukki la kon kenn dootul jël ndawal kenn dootul jël nag du dëgg waaw li ngi noonu taxawaay bu rafet bi nga taxaw ak teel waaw Abdoul Aziz a ngi noonu Boucher Abdoul Aziz a ngi noonu Boucher les malfaiteurs Abdoul Aziz a ngi noonu Boucher Abdoul Aziz a ngi daw caméra bi Boucher Abdoul Aziz noonu rek la mën a def Abdoul Aziz a ngi noonu waaye waaw. a ñeme na koo xam ne àddunaam ak àllaaxiraam lépp la defar ba pare macha allah. ñaan rek moom. grand malfaiteur. la nag fëte fëte mi. mooy la nouveau lan loo ko tuddee. nee na rek la nekk ci Asie bi yëpp. waaw diaspora bi ko dese. mu des mu des ci.